dal leen ak jàmm ñu xëy waxaat ci mbirum Cheikh Niass ndax faatoom boobee naka doon na ci guddi lu naka nee na amul benn autopsie boo xamante ni def nañu ko si ngir leeral analyse sooke faatub seen doom joojee ci jamono joojee naka ca police fa mbir ma soqeekoon ab parti pataral bu mag moo fa am kenn nangoogula àddu ci mbir mi soxna Cheikh Niass naka ci réew mi quotidien nee na mbooleem autopsie ba ñu def naka bu noppee ñu def seen autopsie bopp ndax njort nañu ne faatoo pa Cheikh Niass boobee dafa bari lees waxul ki wax démb ba dégagé ay commissaire bu Wakhinane Nimzatt ba woon lieutenant Ahmed Basir Ndiaye di naataangooy l'observateur na xëy nañu defub enquête ci jaar-jaaram ci armée ba ci commissariat ba mu jiite woon di commissariat bu Wakhinane Nimzatt moom moomee di commissaire bi naka fanweeri at ak juróom benn daal na ko bi nekkoon ca Casamance fa mu duggee biir police ak itam dankaafu yamu doon rek bëgg a démissionné loolee lépp nag suñu naataangooy l'observateur xëy nañu diñu ko leeral seenu xët bu njëkk yéenekaay bi ne ab sanction di daan naka boo muyul naka dinañ ko gàcc ci kaw ndoddu lieutenant Basir Ndiaye Ndiaye mi ak i katam ci réewum Sénégal naka ci guddi naka daan yaa ngay dal bu baax a baax xibaar baa ngi ci L'As Quotidien yéenekaay bi ne lu jege naka junne ak juróomi téeméeri jaaykat naka teg ñu leen loxo ndax lànk ne du ñu sàlloo ak njëg yi nga xamante ni jot nañ koo tëral ci dund gi dund gi ci réewum Sénégal ku ci tiital ku ne naka mbër nga turbine yéenekaay moo ngi ñuy xëy di nettali rapport ba ñu dal dee fësal ci kirim yi am ci Afrique la mu ca fësal rek mooy wàllum ñàkkum kaaraange ci Afrique yi naka Sénégal moo jël fanweer ak ñeenteel bu place bi te moonte day ñoo ngi doon namu ne police Sénégal naka bokk na ci police yi gën a xarañ sintendu Afrique yéenekaay bi ne Mauritanie Cap-Vert gi sax sax moo ñu raw wal fajiri quotidien rawaguñu de ñoo ngi jooy dundu gu seer noppeeguñu nag wàllum carburant gi nag waaj jëm ci yokku njëgam yi loolee tax nag yéenekaay bi amu ab jaaxle ne bala ñuy toog rek ñu pompe ñu ba nekk di taraf-taraf yi taraf-taraf gi am ci mbirum kilifa ak simo tey ji nag lu bari dina si leer ndax les échos yéenekaay nee na tey ji nag la ñuy jàkkaarloog àttekat bi tey ji itam la ñuy wax ci seenup mbir ya ñu leen di toppee maître Moussa Sarr mi seen avocat nag ne gannaaw yi nag daañu jébal seenub demande de mise en liberté provisoire ñu bàyyee loolee wax ci wàlluma politique ak élection locale yu dëgmal ci atum mairie bu ndakaaru ak budget bu 40 milliards l'exclusif yéen kaay ne bu doon ab médd nag jàppale ne tan yaa ngi ko tàmbalee yeeru Amadou ñëpp nag jiite ko la ñu bëgg yéen kaay bi ne mairie bu ndakaaru budget bu rëy la am waaye réalisation yi lu tuuti lay dal dee def enquête yéen kaay ne langue politique yi nag si guddi gi nag bëri na si lool ay technocrate ya ca soobu nag ngir jiite gox ya ñu dëkk ngir rek seenub lëngoo ak son excellence gën a yéwén fisc Aminata Assome Diatta Kër Massar waaye naka boo moytuwul naka xeex bu nar a métti moo nar a am seenub diggante diggante Sénégal ak woppi covid 19 mbaadu dafa bëgg a jeex yéenekaay bi critique nee na daal centre de traitement yi ñoo ngay vide 71 personnes rek ñoo ci des lu doy waar laa leen di nettali benn soxna daal moo yàq ëmbam ba noppi naka jël cordon ombilical ba dagg ko aku paaka ba noppi jël doom ja naka suuli ko ca tefes ga ñoo ko déggandoo jaagin jëf ba ëllëg